waaw man maa ngi tudd du Wade dëkk caaro sur mer nekk chargé à la communication bu délégué de quartier yi yi ak yu département bu pikin nekk ci commune wu président Matar Niang la président union départementale des délégués de quartier. Euh, njóoba boobu ak ay wajuram ci biir quartier am la ñu dëkkoon ànd nañu ak caaro yi ànd nañu ak quartier bi mais ànd nañu ak tous les sénégalais naqarlu jëf ju ñaaw ji nga xamante ne ni moom la ñu def nit koo xamante ne nii. ni li ñu xam ci ay waajuram mooy yar ak jub ak teggin ak ànd ak dëkk bi particulièrement moom mi nga xam ne moom lañu ñu mu nekkoon xale bu teey boo xam ne si wetu juróom rek la nekkoon. Euh, lan moo lan moo waral effet yooyu nga xam ni mosuñu ko fee gis tey jii mu am fi. waaw mu nekk lu metti ci ñun maa ngi koy wax léegi si dëj bi bi ñuy rob ndax caaro caaroy géej dafa nekk dëkk boo xam ne xamuñu lan mooy assassinat lan mooy rey nit. caaro yi xamuñu lii nga xam ne dañ ko daan dégg dégg ci dëkk bi ñun caaro yi kéemtaan la doon doon ci ñun parce que dëkk bi ni mu bindoo ci ak bokk mais ni mu bindoo également ci xamante gi nga xam ne dañ koo xamante ak ni mu bindoo ci ak wëlëri yi nga xam ne dafay dox suñu diggante ba tuut caaro yi ay mbokk la ñuy doon xamuñu woon defantelu ñaaw moo tax lii doon lu metti ci nun loo xam ne lu nu bett la yi tamit waaw lu nu naqari lu nu bett la ñuy xaar mooy na yoon def liggéeyam président Matar Niang mu ngi nii taxaw loolu la santaane na yoon def liggéeyam wax na léegi ci message am tamit ne bépp kilifa boo xam ne da ngaa nekk ci biir dëkk bi na nga segg sa njaboot da nga xool leen yaraat leen parce que kenn ku ci nekk lu sa njaboot di def xam nga ko ñu bañ a nëbbante parce que nëbbal sa njaboot ay ay ay bam loolu mooy waral day dem ba màgg génne ko nag ci biti bu ko génnee ci biti mu dem ci pénc mi te loolu doonul lu rafet président Matar Niang def appel ci mbooleem ku dëkk Caaroy géej gi kilifa nga yar sa njaboot ci yarin bii nga xamante ni moom la wax waaye mu def appel tamit ci autorité yi nga xam ne ñoom la ñu dénk suñu réew moom la ñu dénk suñu bopp muy sécurité bi ñu dolli ko nañu dolli sécurité parce que xale bi waxuma fu ñu ko reyee parce que ñun xamuñu fu ñu ko rey waaye fii mu dëkk ci Thiaroye-sur-Mer bu fekkente ne fa ñu ko fekk mu dee bu fekkoon dañu ko jël muy dund ñu war kaa yóbbu foofu ñu ko fekk normalement mais nit ñi war nañ leen a gis parce que national bi route nationale bi ko jéggil route nationale bi su fekkoon dañ ko rey ba pare sax war ko faa indi mais xanaa am new ku koy laste lastee sax ba war a mën a jéggi route nationale bi mais war nañ laa mën a gis kon nañu yokk sécurité réew mi sécurité réew mi lan nañ koy yokke mooy li ñuy recruter ci ay soldats ay militaires gendarmerie ak police ñu di leen recruter nañ leen génne ñu ñëw ci grand boulevard yi taxaw ba boo defee lu ñaaw ci ab ruq boo dawee génn ñu man laa gis su ko defee buñ buñ ko boolee ak yar bi nga xam ne moom la waajur yi yar seen njaboot yi xëñ na ñaaw yi dina wàññeeku mais mu ngi bëgg a bari de mu ngi bëgg a bari te boo seetaanee ni c'est la première fois ci Thiaroye-sur-Mer ah ëllëg xamoo luy xew. kon nag ñu ngi au président de la république di au ministre de l' ñoom ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg sécurité seen loxo ministre de forces armées képp kenn koo xam ne am nga ci responsabilité ci sécurité doomu aadama yi ci réew mi na ci taxaw ñun daal loolu lañ leen di oote. nuyu ñëpp Matar Samb membre des frères de Thiaroye-sur-Mer nekk la porte-parole des frères de Thiaroye-sur-Mer bi El Hadj Samb Gorgui jiite hmm, li may wax rek mooy euh, damay poser waat la question encore comme ni ma ko defee sànq pourquoi ñun ñuy rey. c'est la question que je me pose moom lay poser tout le monde pourquoi ñun ñuy rey mu mel ni léegi ñun nous sommes un peuple de mouton ñun daal dafa mel ni gétt xar la ñu yor léegi Sénégal saa woo xëyee suba Tamba la ginnaaw suba Kaolack la ginnaaw waati ëllëg Djifir la tey thiaroye sur la tey Ndioba la demain à qui la son tour c'est la question que se pose tey Ndioba la mais demain à qui son tour fi mu toll nii kenn nekkatul en sécurité donc. li Mamadou Wade wax léegi dafa am solo réew mi dafa am ñun ko dénk ñooñu ñu ko denk nag ñoom ñoonu war a sécuriser ñoo war a sécuriser réew mi waxuma comme ni ko délégué wax barki dem wax na dëgg amul dëkk benn dëkk boo man a dem ci àddina nga xam ne kër gu ne ëtt bu ne rond point bi ne dañ fay samp a policier déedéet waaye caare bu fekkente en 1996 sur 6 kilomètres carrés nous étions à 40 000 habitants tey ñu sommes à 2020 léegi xanaa war na noo romb 60 soixante mille à soixante dix mille habitants au minimum waroon na doon am un commissariat de police wala benn brigade de gendarmerie boo xam ni lu waay bëgg def di xool si ñooñu. parce que ma ñiy def ñaaw tiif ragalun ma ragalun délégué mu wadd mais burum tuñu leen ragal. donc pour sécuriser la peuple il faut que ñu jël ay gendarme ak ay policiers ay police ak ay gendarmerie dugal ko ci biir commune pour que ñu mën a pour que ñu mën sécuriser réew mais absolument déception totale parce que un peuple comme le Sénégal 16 millions d' habitants mais chaque jour nga dégg kii rey na baayam kële rey tàntam kii rey na yaayam kii jamaat nañ ko ay paaka xale bu ndaw njóoba mii nga xam ne même pas soixante-dix kilos matu ko ñu mën koo jël des sauvages mën a jël ay paaka def ko soixante-quatre coups de couteau njur ko ko même pas soixante-dix kilo xale bu ndaw jigéen mo xalaatal yow fi nga taxaw nii xalaatal au moment au moment bi ni jëm jóoba paaka yi xalaatal si c'était moi xalaatal si c'était sa doom muy yuuxu ba dee c'est extraordinaire mais ba kañ est-ce que dañuy jël njóoba rek njóoba dee na d'accord na su nañ ko si alméri ñëw nañu ñaan nañu non on arrête non on doit voir fan la mal bi ne la racine du mal fan la ne ñu dem xool ko fa mu nekk ñu faj ko loolu lañ war a def. ni ñuy def mooy la délégué est là ñun en ce qui nous concerne laa wax parce que man ci kañam la ci quartier am laa dëkk moom la fi yàlla tegandi mu nekk fi uutu fu baayam tey li ñu war def état teg ko fi mooy conseil de quartier la ñuy woote. ñu xool ñu waxtaan après dinañ ci waxtaan bu ñu wootee conseil de quartier jël les jeunes parce que 65 jeunes ñu jël jeunes bi waxtaan ak ñoom du leen jox yat nag du leen jox fital du leen jox përë du leen jox jaas déedéet mais dañ leen di conscientiser ci li nga xamante ni moo war a xew ci sunu koñ képp ku nu gis koo xam ne óor na leen ne comme ni ko gendarmerie ak police waxee kii dëkku ci koñ bi wala kii Samba Boy la na ngay ñëw nga ëpp la la délégué nga ma gis na la óolu ma ko moom directement il va ko yóbbu mais mu jeex ñu sécuriser sunu bopp mais on n'a pas dit nag de se battre waxuñu xeex de xeexuñu xulóonu non mais nag am nan droit ku ñëw sunu koñ xàmmeewuñu la fi sa aada bokkul ak sunu aada ndax ñun caare xamuñu rey nit du ñu rey nit du ñu rey kenn kon lii rek la. rahmaani Alaaji Maxtar Niang président union départementale délégué des quartiers de Pikine li xew ku ne yëg na ko ku ne xam na ko ku ne xam na li xew rafetul jaaduwul comme ni ko ñii ñu ko waxee rek ni ko Mamadou Wade waxee Maxtar ni ñu ko waxee caare li mos fi am am na ko wax sànq nag ne ca mag ñi bañ fi nekkee lii amuloon wax na dëgg dëkk bi yokku moo andi lii comme dëkk bi yokku na am na ñeneen ñoo xam ni juddoo ñu yi ñëw caaro yi xëy na moo andi ñaaw te fii et man sama wax du ci sori comme ñoom wax nañu daal damay dëggal ne li ñu wax dinaa ci ànd ak ñoom ñu def ko na mu waree du ñu xeex nag du ñu xuloo mais ku fi dugg dinañu xam yow yaay kan. dañ au gendarmerie waa ñu o police mu ñëw jël si la